asalaamaaleykum ñu sant yàlla di jullu ci yonante bi salallaahu alayhi wa sallam di sant sunu waajur yi di sant sunu président di la sant yow Pape Hann ci initiative bi ngeen jël ñu ngi gërëm ñëpp comme li ñëpp wax rek xam nga wax moom répétition la rek ñëpp kontaan ci ci ci xalaat bi ñu ñaan yàlla leen la ko fi yàlla yemale te wutal ñi ñàkkale yal yàlla wutal leneen may leen gudd fan ak wér may borom kër gi gudd fan ak wér ñu ñaan Sénégal Sénégal a ngi nii ñëpp benn lañu ñëpp bokk ndey bokk baay ñuy wax oustaz Pape Hann am na ñeneen ñuy ñëw sama mbokk yee ma dëkkal ci en face Bokar Samba Dieye dañoo xat rek moo tax ñëwuñu mais ay xale yi ñu ngi ay imam yi nekk foofu ak xale yu jeunes yi nekk foofu yëpp ak góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp boole nañ seen doole ñu ngi ci yoon wi di ñëw incha allah ñuy gërëm ñëpp di gërëm présidente bi Adja Marème Diop Makhtar nga xam ni moom xalaatam yëpp pour defar rek la social ci moom la fekk baax ñu ngi gërëm aji marem bu baax a baax a baax di gërëm sama xarit yi nga xam ni ñoom ñoo sos xalaat bi merci beaucoup. barkallah ngeen jëf soxna si waaw ñaata ngeen indi. waa mhm. la ak ñeent. ah, ah tabarakallah. Mhm. Euh, mhm. ñoo dajale ñeent fukki junni ak ñeent. ñeent fukki jërëjëf jërëjëf ah déedéet mat na kay moom kay moom wóolu naa la wóolu la mi ngi nii ñeent fukki junne ak ñeent a ngi nii waaw. fukki mhm. ah, A. xam naa ko xam naa boobu. aji Mariam Diop sama xarit la. ku baax ku baax aji Mariam sama xarit la. gëj naa ko gis nag waaye sama xarit la. waaw ndeysaan. Mhm. nday nday maa ngi koy nuyu moom itam. barkalaa jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf barakallah moo ko joxe amical bee ko joxe yal na yàlla yokk leen dëgëral yàlla yàlla sàmm wëllëre ci barke ak ñeent deux cent soixante-dix mille euh, waa zone A ngoog mbokk yi tabaarakallahu mi ngi noonu waa zone A ngoog yal na yàlla yokk seen teraanga di ñaanal mboolem ku dëkkee zone A yëpp waa amical bi ñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla gën leen a barkeel ci daraja yi Seydina Mouhamed jërë ngeen jëf merci beaucoup jërë ngeen jëf ñu yeewi leen jërë Cheikh jërëjëf tabarakallah jërëjëf ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf waa kay Sonko jërëjëf jërëjëf mbokk yi tabarakallah mi ngi noonu incha allahu taala Euh, ñu ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko léegi Serigne Cheikh gis nga mbaax gi nga xam ne réew mi nekkee nanu ko nga xam ne ñoo yëkkateendoo di tëralandoo ci mbaax ku ci nekk ci problème réew mi daal di day daal di jóg waaye ñu ngi ñaan lii yàlla na fi yam euh, dañuy dalal léegi xam ngeen DJ Drogba tabarakallahu euh, di international camerounais ivoirien di dëkk ba Côte d'Ivoire mbaaxam a ñëwagul waa kër Drogba ñëwagul kon sa Serigne bismillah moom it Drogba yónnee yónnee na lu am solo kilifa gi ñu ngi lay ziar baax a baax. salaamaaleykum ñu ngi waaye ñu ngi ñu ngi nuyu mbokk Sénégal yëpp di masowu tamit ñi nga xamante ni ñoom la tiis yu dal seen kaw lii nag moom yónnee la boo xamante ni sama papa moo jóg muy gi waaw te mu toll ci douze mille francs bëriwul mais. waa pour rek jàppale mbokk yi nga xamante ni ñoo am tiis bi kon jërëjëf ñu ngi sant ñëpp tey gërëm waaw kay jërëjëf barakallah kilifa gi nuyu ñu góor gi baax a baax yal na ko yàlla yokk dëgëral yàlla yokk teraangaam gis nañu yóbbante bi ñëw na yal na ko yàlla yokk dëgëral jërëjëf sëriñ bi tur bi asalaamaaleykum rahmatullah ñu leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam man nag damay ñëw euh, participer à cet élan de solidarité bi nga xam ne TFM euh, initié na ko man na je viens pour cette symbolique euh, c'est-à-dire de des dons d'habits yoo xam ne sama waa famille sama yaay samay mag la famille Ndione à Golf Sud Khadijata Fall Maimouna Ndione Khady Konaté Mambousso Ahmed Cheikhouna ñoom ñëpp ñun ñoo dajale lii ñoo ko dajale ñëw jàppale leen ko incha allah am na yeneen am yoo xam ne ñu ngi koy def maanaam dugg ci koñ beeg yooyu balaa incha allah vendredi ñu dajale somme boo xam ne dinañ ko mën a dimbale suñu mbokk yi nekk ci ndox mi. ñu ngi leen di sant bu baax Serigne Saliou Mbacke Ndior. Serigne Saliou Mbacke Ndior jërëjëf nuyu waa Golf Sud yëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral euh, kon Serigne Cheikh ñu dalal euh, ki nga xam ni moom la Drogba yónni moom itam bu ko defee ñu kon ne waxtaan bi bisimilah kilifa gi euh, ñaanal leen yal na ko yàlla yokk dëgëral. lu am solo waaw waaw waaw. wax dëgg yàlla. Serigne Cheikh Drogba ku mën a dugal la waaw wax dëgg yàlla lii dafa am solo wallaay day dugal day dugal waaw ndax réew mi lii mooy la wax Sénégal mooy njukkal Sénégal mooy njukkal Sénégal te gis nga nga nga xam ne nga xam ne du sénégalais waaye am na lu mu yëg ci xolam moom itam solidarité boobu Serigne Cheikh waaye africain la africain la africain la te itam nit la maanaam bani aadama la mooy humain bi xam nga nit ki lii dama la jël na xeet jël na waaso jël na ay réew mhm. jël na parparloo ci politique mhm. jël na mbirum tariqa jël la sax diine suñ mbokk chrétien yeeg jullit yeeg képp koo xam ne nii yaa ngi yeewu ci àdduna di nokki rek yaa ngi yëg ni Sénégal am na naqar nga ànd koog moom Drogba gi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax salaam maa nuyu yéen tamit ku nekk sa tur sant maa ngi fi maa ngi fi teewal euh, fondation Didier Drogba di fi teewal tamit agent am Thierno Seydi man raqam la donc moo ma yebal si seen tour si turu ñëpp jërë pour mu ñëw population pour ñëw jox leen chèque cinq millions bi boo xam ne fondation Didier baa moo ko joxe. waaw cinq millions yi. léegi yeneen un million yi kii Thierno Seydi moo ko joxe waaw moom moo ko joxe waaw Thierno Thierno Seydi euh, manager am moom moo ko joxe tamit si bi mm-hmm. waaw. Euh, waaw yëg na ko yëg na ko bu te vraiment bon bi mu ko bi mu ko yëgee moom tamit toogul seetaan parce que daf ko yëg rek si la woo xam nga woote ñu xam nga ne daal il faut mu def dara. donc si lañ ma woo démb mu ne ma daal il mu def dara moo tax tey ma xëy andi chèque bi si turam. turu fondation bi. mi pour allah dina ko dégg bu baax a baax jërëjëf dina ko dégg baax na jërëjëf merci beaucoup. allez baax na. barakallah sang bi jërëjëf nuyu ñu DJ baax bu baax euh, réew maa ngi koy gërëm. Euh, ñëpp a koy gërëm waaye it nag rawatina télévision Futurs Médias euh, kilifa gi di borom kër gi di monsieur le ministre Alhaji Youssou Ndour kontaan na ci moom euh, président directeur général Mamadou Ibra Kane ñoom ñëpp bég nañu mboolem ko xam ñaa ngi ci télévision bi kontaan na Drogba joxe na 5 millions te ménagèram Seydi Souleymane moom itam joxe na Souleymane Seydi joxe na 1 million ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñëw Serigne Cheikh ñoom itam joxe seen participation ñu ngi leen di ñu ngi ñaan ñoom soxna yu baax yi ñoom yàgg nañu fi soxna si bisimilah bisimilah ca nga xamee ne rek mbaax Serigne seex yàgg na ci biir réew mi. jullit yi ak.